fii rek. da ngay jóge fii rek. dundaat feneen ci saas si. dundaat feneen ci saas si. Seyd Abdoul Aziz si. Seyd Abdoul Aziz si. ñi ko mujj gis. ñi ko mujj gis. lenn lenn ci ñoom. lenn ci ñoom. seede nañu. seede nañu. dal xel ga mu àndal ba muy daje borom. dal xel ga mu àndal ba muy daje boromam. am na sax ku ma ne soo ko gisee. am na sax ku ma ne soo ko gisee. bi mu demee. bi mu demee. daagi sourire daagi sourire rëy bu rëy ci kanam ci kanamam ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية جلبك جلبك يوم يلا نينا دينا sama jaam bi taxawé li ma bëgg jaam taxawé ko ci kaw suuf yalla neena dina wax sama jaam bi taxawé li ma bëgg sama jaam taxawé ko ci kaw suuf ci di yewenal ci di yewenal ci di saxal jàmm. ci di saxal jàmm. ci di yittewoo mbirum nit ñi. ci di yittewoo mbirum nit ñi. lu koy lu koy yëwanal lu koy doxal. lu koy yëwanal lu koy doxal. bis booy dajeeg man. bis booy dajeeg man. dama naan la. dama naan la. yaatu nga. yaatu nga. ñëw nga ci man. ñëw nga ci man. ànd ak sama ngërëm. ànd ak sama ngërëm. yow itam ci sa bopp. yaa ñu may gërëm yaa ñu may gërëm kon bokk buntu aljanna kon bokk buntu aljanna commencé nga koo gis commencé nga koo gis ñu di la ko ubbi ñu di la ko ubbi man talaata bi ma gisee moom man talaata bi ma gisee moom ca dal ga ca mbaax ga ca ay daa ngi taxaw papa ay daa ngi taxaw ak soxna maam faam ak soxna maam faam ak Ibrahima Kouadio. ak Ibrahima Kouadio. ak Papa Cissé suñu doom. ak Papa Cissé suñu doom. wax na ma ne. wax na ma ne. Cheikhuna Tidiane daal dégg naa baatam muy wax. Cheikhuna Tidiane daal dégg naa baatam muy wax. xalifaam yu bari ñu ngi teew. xalifaam yu bari ñu ngi teew. foofu rek laa mën a yem. foofu rek nag laa mën a yem. mu ne xaw ma nag dañ ma jël si walla déet. mu ne xaw ma nag dañ may jël si wala déet. ah ma ne ko si. ma ne ko ah, si. sëñ bi yàlla nañ fi gën a yàlla nañ fi gën a yàgg. mu ne amiin. mu wax itam kenn ci magu cheikh alxaaji malik yi wax itam kenn ci magu cheikh alxaaji malik yi ku cheikh alxaaji malik soppoon doyloo ko ku cheikh alxaaji malik soppoon doyloo ko nee nañu ba muy góor jagsaaw moom maam alaaji malik nee nañu ba muy góor jagsaaw moom maam cheikh alxaaji malik kenn gënu ko ca woon nekk jàmbaar kenn gënu ko ca woon a nekk jàmbaar muy maam iliman saaxo muy maam iliman saaxo papay alxaaji Ibrahima Sakho. Babbay Alxaaji Ibrahima Sakho. sëriñ bi ne ma gis naa ko. sëriñ bi ne ma gis naa ko. te talaata jooju. te talaata jooju. àll alxames. àll alxames. ci guddi mu dem. ci guddi mu dem. moom. moom. ku sell ku sell